sama portable bon je joue souvent quoi même concours bi liir ma ko jot ma ko woon liir sax quoi mais à la suite laa yegg ne gagné naa quoi waaw j'avais j'avais misé je crois 1000 francs ou 2000 francs je pense quoi waaw ba ñu woo ma dama gagné nga ci laa ñëw fii quoi bettoon na ma quoi parce que yaakaar moom gagné quoi mais kontaan naa ci trop dem suivre kan bi bon bon gëmu mën naa dem daal voilà. J'ai eu l'occasion, quoi, content Je suis très heureux d'avoir participer au tirage de la LONAS et d'avoir été sélectionné. Et je remercie aussi toute l'organisation de la LONAS. Et très content d'aller participer au match de la Cannes. Donc la chance m'a souri, je suis très content d'aller à la Cannes. amin ah, de kam sina mbiɗo welti hannde komin joué lonage min gagni ko min gagni billet de voyage pour yagol kan côte d'ivoire 2024 o min belti hen no feewi woni hen mette amen tan koko sénégal piya ko seeɗa ɗum da woni ko mettino kono kam mine welti moƴƴo mi iwri ko matam mais mi waɗa mi application internet mi waɗi inscrire mi naati après mi joui hen eyyi ɗum waɗi ha lii de jeu concours la boo xam ne LONASE moo ko lancé muy LONASE point bet LONASE dafa am ay jumtukaay yu bees yu boo xam ne da ko créer pour que ñi yor téléphone ñii nekk ci internet bi mën a jouer mu am nag ay parieurs yoo xam ne dañoo gëm plateforme bi ba macha allah ñu am ci ay résultats yoo xam ne ah ñu am ci yoo xam ne am nañ ci satisfaction bu ko defee nag euh, directeur général bëgg récompenser ay parieurs ñi nga xam ne gëm nañu plateforme bi looloo waral concours bi mu amoon nag fukki ngajaan gagnant yoo xam ne ñoom lañ ci prévoir woon ñeenti dem nañu ci phase de poule ñetti waroon a dem tey nga xam ne bu ñu tolloo quart de finale ñett dem ñett yooyu lañ doon récompenser di leen jox seen i billet d'avion ak seen pécule bu ko defee nag bu ko defee nag euh, ñu leen di yëgal ne jeu bi jeexagul parce que am na ñett yu des ñoo xam ne war nañoo dem ci final ba euh, kon le 5 février daa amaat beneen tirage ñu génnee ci ñetti gagnant pour jouer nag yomb na luy tàmbalee ci mille francs ba jëm kaw ku ko def rek ku ko miser rek da ngay bokk ci ñi nga xam ne ñooy bokk ci tirage ba boo ci gañee ñu yóbbu la Côte d'Ivoire nga dem seetaani feetu football bi waaw ñu am ci ñu ciy profito rek di leen xamal ne directeur général Abdourahmane balde mu ngi rafetlu taxawaayu parieurs yi di am mbégte ci ñoom di kontaan ci ñoom ci nañu amee ngëm-ngëm ci lonase point bet waaw di leen xamal ne daal ñun parieurs yi lañ fi nekkal ku ci dem Côte d'Ivoire dañ la toppatoo transporter la booy wàcc ne cëpp ci avion ba rek ñoo lay yóbbu hôtel ba jox la sa néeg ci otel ba héberger la booy seetaani match moo am ay car yoo xam ne dana la jëlee foofu ci hôtel ba yóbbu la ba match ba ba ci terrain de football ba aller retour bu fekkee ne nag dangay ngay xewlu ni sekkeen yi ak njaween yi jox na la trois cent mille pour nga seet daal fooy mën a xewlu mu nekk nag ay conditions yoo xam ne ñoo ko jagleel suñuy pariyeur am mbégte ci ñoom di leen sargal ci occasion bi